te mu mel ne bu ñu ko xaajoon ñaari xaaj benn xaaj ba moom teg na aslëf jàll te kat bu yàggutoo ñu bare nga koy waajal noonu nag la sunu boroom binde lim bind lépp lu ci nekk boo ko dee séentu rekk ba xam bis ba daanaka waxi jeex la ñuy wax kon boog koor gi waxi tàggoo lay bëgg lay bëgg a wax liñ ci jot a def yàlla na ko suñu borom nangu li ci kanam it yàlla na lu may man ak tal ba nu mënu koo jooxe te mu nangu ko mu mel ne bu xaaj bu njëkk bi jàllee ba teg ay fan day jaadu ci jullit bi mu natt ay koogam ba xam koog yim jot a duy benn bu ca nekk la ca war a nekk moo ca nekk ndax ba mu ko cay def setoon na ak fa mu ko denc ndax wóor na su ko defee lu mu ca gis moo gën a xam boppam képp koo xam ne bi weer wi tàmbaleeg léegi jutu ca wóor jotu caa wóor ay bés jutu caa woor ay bés na gaaw um ndax kat nëgë ni daaw ñi ngi fi bokkoon nekk aku nit ngeen di dem ak a dikk yàlla dogal na lam dogal ci ñoom ren wóor na ñépp ne loolu alxuraan la ñoom ñépp ña ngay réccu la ñuy mooy lu teewoon daaw ñu def lu bari kon bokkum fi fekkee li ngay dund na nga xam ne mii euh, xaaj bu njëkk bi jàlle ba teg ay fan noonu la suñuy fan yéese lu toll ne li dem ci koor gi ci weeru koor du dellu si waat ay fan sax bari na ca waaye nooy yi ci yoto nooyee ko si néew sax du ñëwaat su ko defee ñu bàyyi xel ne yàlla la mu waxoon tey la ko gën a wax tey la waalo gën a aay Euh, xaw ma nag lu daloon lu waraloon léebu woowu waaye yàlla daal la mu waxoon moom tey jii la ko gën a wax am na yetti kullu yu ma jàng léegi yoo xam ne benn bu ci nekk bay tëj bunt ba moom leer na ñépp euh, kulla yawmin huwa fi sha'n mooy bis bu nekk ak la muy dikke ak la cay xew euh, am na ñooñ bis bii ñu toll di nangami fan ci weeru koor mooy seen bis duñ ko génn mukk tafaatu ko am na ñoo xam ne mooy seen bis ci la ñuy judd mënuñu woon a juddu bis yi jiitu ci koor gi lu dul tey rek la ñuy war a judd bis bu nekk ak la cay war a xaw bis bu nekk la cay war a xaw it weesu na foofu dangay dégg bis bu ñu jàmbat aw tàngoor bis ba ca sës sedd guy noonu muy soppe jamonoom nag eh, day feeñ ci lépp daa moom day boroom ba ca topp mooy lu nekk ci kaw suuf day jeex tàkk bis day ñëw mu jeex loolu yomb naa xam kenn fi kenn ku nekk ci ñun xam na mbooloo mu bari moo xam ne dangay man ne fii la diw dëkkoon mu gental ko nga ne fii lañ ko denc mu sanc fa te yàlla rek xam kañ la fay jóge ak jógeem fa moom yow doo ko fekk bisay ñëw rek ñu boole leen woo yéen ñépp ngeen di pullet pullet yi mel ne bu tawee ba bis bi am ba taw bi am juróomi fa su ko defee nag ba ca topp mooy boobu mooy kullu man alayha faan ba ca topp mooy kullu shay'in haalikun illa wajha ñen yu nekk dégg nañ ñu ne tabax sàngam daa xëy xëy rek daanu te moo ne ba muy soog a noppi yéeme woon na lool cib rafet cib rafetaay akub dëgëraay mboolem lu sa waroon ci ay fagguteef ba man faa yàgg defoon nañ ko waaye di dig baa agsi rek mu xëy xëy mab daanu ba kenn xàmmeetiku ak jalub suuf bu mag rek waaye ba ko tëj nag mooy moo mat a waajal mooy kullu nafsin daa'iqatul mawt am na ci alxuraan lu ëpp wenn yoon am na bu boo xam ne ma nga ca teg summa ilay ilayna turjaun am na boo xam ne <coughs> innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaama moo ci topp bi ma jëkk wax mooy foo way yàlla yàkkamtiwul dara yàkkamtiwul kenn it waaye ku nekk dana la masa jàpp bis rek lay xaar ak yow moom la ñuy wax ne sàcc bu dul raw jërul yàqi nelaw sàcc bu dul raw jërul yàq ay nelaw moo tax nit ki su fekkee lu mel ni weeru koor fekk na ko ci kaw suuf muy dund eh, lii mën a tax weeru koor wi ñëw ba jeex te xamut lum mu ca defal yàlla walla ndigalul suñu borom lum mu ci jëfe loolu jullit bu nekk war na ko moytu yàlla na ci yàlla musal te kat bokk yi sunu boroom du teg nit lu mënut laa yukallifu llaahu nafsan illa wus'aha du laaj kenn it lu mu amul laa yukallifu llaahu nafsan illa ma ataaha lu ci nekk xam na nit ki mën na ko léeg-léeg nag nit euh, lajj wàcc yoon moo ne wàcc yoon gi ñuy wàcc yoon ak a suñu borom waxoon na ak ñun bu yàgg ci ne luy amaka amaat la waaye nañ xam ne foo ko gisee seytaanee fa jaar ak àdduna yaa ayuha nnaasu inna waadallahi xaqun mooy bi ma njëkk a wax yàlla lu mu digee dana ko def gannaaw xam nga ne lu mu digee dana ko def nag te teg ngeen ci seen bët kulla yawmin huwa fi sha'n saa su nekk bis yi ñi ngi ñëw ak di indi lu bokkut ak la seen moroom na seen démb meloon démb mu sedd tey mu tàng jër wala démb tàng jër tey sedd guy yi ku ne mën na ko xam am bis yoo xam ne kuy génn da yóbbaale kaala lu ko may wala ay lonet lu ko may doo mën a gis ndax ngelaw lu bari yenn bis yi mu ne tekk bañ naan tey da daa ngelawul loolu ku ne teg na ci bët neex naa xam waaye ku ne teg na ci bëtamit ne loo gis ci kaw suusi rek day jeex tàkk li ci gën a cher ci kaw suuf si li ci gën a am solo muy nit fii la dëkkoon dégg nañ ko ba tàyyi fii la këram nekkoon wala ñu xëy xëy ne la mën a ko a ak a masa am kàttan kàttan nga jeex na ak a masa neexi nopp loo sori sori boo ko jëwee mu dégg ko kon ñàkk na ko léegi saa bu ñu masaan di nas pusamam la ñuy woo ndax gët yu neex léegi da koy indi ba mu sës ci gëtam yi te du tax mu gis ko tuuti la cay gis pexe mu ne defal ko ngir mu man a gis kon kon nekkatu fa gis ba nekkatu fa ba cëram yi ne ci yaram bi yépp loolu gisas na ko ba tàyyi waaye lu ne ci kaw suuf day mujj yàqu ba mel na du moom misaal yi bari na waaye nag bi ci des moom mat a waajal kullu nafsin daiqatul mawt wa innama tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama faman zuxziha ani naari wa udxila aljannata faqad faaza yal na nu ci yàlla boole waaye nag fala taxurrannakum alxayaatu dunya yi nga xam ne adduna daf koy indi mu mel ni ab jay wala mu mel ni ab yàq yàlla nee nañu woon bu yàgg li yàlla digge dana ko def bu leen àdduna man manee mukk ba ngeen teggi seen tànk ci fi leen yàlla joxoñ wala yaxurannakum billahi alxaruur seytaane ak adduna na ngeen fexe ba lu jay bi bari bari lu yëngatu bi bari bari féete leen fa yàlla féete rek ndax ku faatu rek yàlla wax na ak moom wa laqad jitumuna furada li muy jëkk wax ak moom mooy mooy foofu ah dangay defoon du ma la jàpp wa laqad jitumuna furada kama xalaqnaakum awwala marra bokk yi bi suñu borom di di ñu bind kenn fekkewu kenn jàppalewu ko néewul kenn jox ma martu be bu dee lu ñu war a laaj wala jox ma tournevis be bu dee lu ñu war a lu tournevis dis wala dama indil ma lee ñi nga xam ne ñoom la nit di jaare sax ki ci gën a fës muy jigéen léeg-léeg suñu borom jëfandiku ci moom te du ko yëg dana toog lu yàgg du xam ne mi ngi ak dara kon boog bis ba muy jàkkaan jàkkaarloo waat ak nun naan bi ngay ñëw de yow dong yaa ànd moo ne nii la demee bu jëkk de yëgoo woon nag waaye tey moom yaa ngi ne jar di gis di dégg kama xalaqnaakum awwala marra wa taraktum ma xawalnaakum waraa zuhurikum loo amoon ñàkk nga ko tey wa ma nara maakum shufaaakum allazina zaamtum annahum fikum shurakaa ña nga faraloon féete ak ñoom ba tax su ma masaan digle nga ñàkkal ko solo ne ah li muy digle kenn mënu ko seet la diw di digle mu neex ci yow jubu la nga jaar ca ana ñooñu tey wa ma nara maakum shufaaakum allazina zaamtum annahum fikum shurakaa laqad taqataa baynakum seen diggante dog na kañ ba kañ bis bu ñu leen taxawalee ku ne di jël ci sa moroom sa xaq bayru ñu fi doon fàttali keroog ne soxna si da koo jàng wax ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa wax ko ci la mu ca wax dafa am ko laaj fu mu nekk ak lu muy tekki mi ngi ci téere bu Sëriñ Tuubaa bu ñuy wax tasawudu sixaar donte mën naa am ci tasawudu shubbaan li muy tekki mooy yow ëllëg toppante danaa fa gàññ sëñ bi mi ngi wax ci bis pénc ak la cay xew wa yaqaaw alqisaasu bayna jamma wa bayna qarna li adlin samma mooy ëllëg toppante day am sax jëlale na nit ñi de ci yaa wala yaa ma taxoona waaye jëlale na nit ñi waaye jur gi sax toppante day am seen diggante jam mooy xar mu amuti bëjjën xar yi nga xam ne amuñu ay bëjjën wala nag yi seeni bëjjën damm wala waroom bëjjën yi daal yàlla xam dañ ko yeex a saxle wala saxlewuñ wuñ ko wala dammale nañ ko ci ab xeex seeni moroom nennu leen di leen daan su ëllëgee sëñ bi bind na ne yàlla day saxal ñii amutoon yi béyjën ay béyjën ñu fayu ca seeni moroom ya amoon yi béyjën kon bokk bokk yi nit ñi rawaate ca kon bokk laqad taqataa baynakum seen diggante doggante am na ci boo xam ne bis pencey taxaw nga joxor bi ko ne ko fay ma benn su amee fay la su amut ñu sëfal ko ci say wàkkaar loolu nag bokk yi fi lañ koy xalaate ndigalul suñu boroom du ay caaxaan tey su xiin saxee ku ne dana wuti fu mu dugg moo ne nekk ci biti tawate wàññiwul dara am na ñu koy def du leen wàññi dara waaye suñu borom moo ci wane kàttanam rek ci ne saa su nekk am na lu mu bind lu ñuy ragal euh, bu tawee ba ca kanam yëngu yooyu muy yëngu am na ñoo xam ne dañuy fab seen doom dara ko ci seen bopp gëmm képp lañ man yaakaar yàlla nag waaye ñëpp ay tiit tax ku yàlla may muy dund war nay xool boppam saa su nekk mu ubbi xët bu bees peq sëñ bu mag bi bindoon na ne toppante googu dox diggante nit ñi tey jëlal nañ ko waaye day am ba ci jur gi sax mooy way xaawul xisaasu xisaas mooy fayantoo lu lu koy defoon ñu delloo ñu def ko lu ñu toll bay na jàmmaa diggante njëkk njëkk mooy xar ma amuti béjjën wa bay na xornoo ak diggante euh, xar walla béy waroon béjjën yi loolu lu tax yàlla jëfandikoo ko fa li adlin samma maanu gu mat sëkk ba loo mënal sa sa moroom nañu lu baax rek waaye bu dee safaan yàlla daf koy toppante ba ci diggante xarak ak morom ja wala bëy ak morom ja wala nag ak ja sax moo tax mu ne bu ñu nekkee fii ci àdduna demaguñ weeru koor teru ba weesu xaaj nañ xam ne kenn du wut ngërëmul lu neex kenn ba mooy yàlla mbindum suñ mag bi la qultu nee na woon ca masalikul gi naan wa xaytu maa dakartu lafda fa min maani qawlihim naqaltu saa boo gisee ma ne xultu maa maane moom fu ma ko waxee fu wér laa ko teg waaye dama jël nag sama yan yanu ko ne maa la ko wax defal lu la ca fekk woow ma dafa firi xaddisu bi bi muy wax ne laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq bu kenn jéem a seet lu neex nit nga di ca ànd ak moom ba far mooy yàlla moom nag bi mu koy leeral daf ne qultu wa man talaba ridwana alwara bi suxti rabbihi fa xumrun dukara képp koo xam ne maane képp koo xam ne mi ngi wut ngërëmul bindéef mu mën a doon ba tax mu ne fa tegg ngërëmul ndigalul suñu boroom ba nar càtt seek mbugalam dof bu gëmmentoo nga noonee dof daa doy sëkk tàggoog sago waxaale wuñ dof bu gëmmentu far dof moom bu nelawul sax bu gëmmentuwut nelawul sax disu ko limaale ba ci jaamu yàlla disu ko ci limaale waxaale wuñ nag dof boo xam daa gëmmentu far qultu man talaba ridwan alwara bi suxti rabbihi fa xumrun du kara daan ne su àdduna bépp maase woon wala ka ngay topp ca moom di wut ngërëmam di ko wut guddeeg bëccëg ba teelaa jaamu yàlla amul la njariñ amul lu mu lay faye ëllëg fa laysa faxit faxit an dalida ngërëmul nit ñi amulul benn njariñ ngërëmul yàlla moo mat a wut nit nag dana yóbbu nit aljanna nu ngi ko ci yóbboo da koy tegtal yoon wa ba noppi jaar ca da koy tegtal ku la tegtal yoon wu jëm dëkk sangam jox la wet ga këram nekke soo toppee ay tegtalam ba àgg kër ga moo la fa yóbbu waaye su la joxee ay tegtal nga yoon woowu dafa gudd naa seeti naa seet feneen te taxul nga xam yoonu yoonu dëkkam du ngeen mës a gisante fenn moo tax mu ne ngërëmul bindeef amul njariñ yàlla na tasee ngërëmul suñu borom rek kon bàyyil wut ngërëmul bindeef te wuti ngërëmul suñu borom bi bind bindeef yépp waaye wala yaduruka ida ardayta mawlaaka suxtu man lahu asayta tey bu la nit ñépp maase woon wan gannaaw kenn ku ci nekk dagg la wacc ndax li muy digle nanguwoo ko def ndax loola dëppawut ak ngërëmal suñu borom nee na du la wàññi dara lépp loolu mën nar a meree wala mu war la ko meree ndax li mu lay digal ngay bañ te loola lu mu lay digal wërtu naa ngërëmal suñu borom yow ngërëmal suñu borom ngay wër nee na cawwu ci ngërëmal suñu borom xamal ne kii mënal la dara moom la alquran waxoon bu yàgg ne wa in yamsaska allahu bi durin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi yusibu bihi man yashaau min ibadihi wa huwa alghafuru rahim kon boog bu ñu xalaatee ñi fi nekkoon ñun daaw ci weeru koor bi fan yii kenn ku nekk waajoon ne bu korigaay ñii la cay def naa la cay def yàlla dogal balaa korigaay laata dem ci fan yii mu nelaw ñun ñi ngi feelee ku si néew nañ gaaw ba réccu la daloon ñooña bañ ñoo dal ndax kat alxuraan nee na ku dem dana réccu ku dem dana réccu lu tax yàlla mayu ko mu dellu siwaat fi def fi ab diir bu gàtt moom la sëñ bi tënk ci benn bayit wa argabu l ashyaai lil amwaati raddun ila dunia maa alxayaati walaw suwayatan faqat euh, li yaamalu mooy li alquran wax ne yàlla tey nga ñoo baal ñu delluwaat àdduna mu ne loolu mënta am moom kay ña fa nekk ay ñoo leen mën di mën yërmande rek waaye yéen moom du seen jëf toggatuñu leen jëf yéen fii ngeen di xaar ba bañ leen di àtte kenn ku nekk say dossier ngi toog di xaar suñu dossier nag yàlla na ca weere koor ne fa ne fét féttéral koor gu suñu boroom nangu euh, bu ñu fàttalikoo ñooñu rek danañ xam ne lépp day jaax te bànneexum àdduna lu mu lu mu yaatu yaatu jërul gàcceeg àllaaxira te sëñ bu mag bi bind na ci ab leetar bu mu doon bind mel na mbokk mi ngi ci majmuatu bi sëñ Abdou Lahad dajale nee na ko léeg-léeg nit dana fa danañ fa joxar bi nit di ko tagg di ko tagg bañ naan waaw xanaa yàlla dañoo fàtte ñun booba tey mu nekk yéeg di ko tagg rek tagg mooy di ko kañ kañ yàlla du tagg kenn day kañ waaw góor maanaam yow li nga am jomb la da nga ko kaññe taseeg yërmande suñu borom waaye nee na nag léeg-léeg ñu di fa tànc nit tànc di wax ay ay yëfam bam na yàlla tey nga ma yërëm yóbbu ma sawara te noppi te wax kii wax ma noppi loolu nag ku ne xam na fam jaaroon ba loolu dal ko yàlla na nu yàlla musal ñi nga xam ne it ñi ngi góor góorlu di woor ñi ngi ci ndigali suñu borom waaye bu ñu ko yàq buñ nen di naan nen di naan mooy woor ba noppi euh, di nelaw bëccëg yi di xoole guddi yi loolu taxul ñu naan koor koor moom bëccëg bi moo ci ëpp doole ndax mooy dara yi di jànge li muy jàng taq waa moom kenn mënut di nekk di nelaw di ko jàng taqwa mooy dugg ci sam néeg ubbi sa gaal yooyu ñu def ndox mu sedd waxande ya yu sedd ya nekk ca te di ay ñam nekk ca te di lu ñuy naan yow képp nga nekk fa nga ne dama woor ban ko gannaaw ku ko jàng ci koor gi ba mokkal ko leneen la romb it boo woree war ngaa mën a xam yàlla ngi lay gis moo tax daara la joj njàng mi ci nekk dafa bari ñi nga xam ne daal seeni xool daana dund bu koor gi masaan ñëw ba agsi fii mu agsi ay rongoñ lañ koy jàpp lañ koy gunge rongoñ dañuy fanaanee jooy di yondoo jooy moom la alxuraan di wax ne <clears throat> ayaxsabuuna annama numidduhum bihi min maalin wa banina nusaaricu lahum fi lxayraati bal la yashcuruun yàlla jox la lépp jox la lépp ba noppi nga ne yàcc yàccaaral defe na bu ëllëgee lu ne man nga ko am nee na ñoo yëguñu li xaw nee na dëgg-dëgg moo nga tàmbalee inna lazina hum bi ayaati rabbihim yuminuun wallazina hum bi rabbihim laa yushrikuun wallazina yu'tuuna maa aataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raaji'uun ulaa'ika yusaari'uuna fi lxayraati wa hum laha saabiquun nee ñi nga xam ne ñoom yàlla day na jox lu ne gàññ jox leen ak njaboot te te te te nañu bari jox leen alal ñu bari di ko wut mënuñ koo am yàlla ne na damaa dañoo yaakaar ne dama cay boole defar leen seen mbir te duñ def dara defar mbir nag boo ko déggee diggante yàlla ak ñun mooy payug ëllëg nee na ku ci topp sa njaboot ak sa alal di ko saax-saaxee fii defe ne lépp day baax ëllëg it mën ngaa yëgoo li xew ëllëg moom la fay xew mooy koo xam ne xol bu set wicc ci yor te tegoon tànkam fi yàlla teglu rawate nag arkaan yi ponk yi lislaam nee na ñooña dem nañ ba àgg ci ñooy gaayee dëgg-dëgg su weeru koor masaan àgg fii ñu xam ne mi ngi bëgg a jeex lee tàmbali woor di denc la mag ñi daan wax woor di wàcc mooy bis boo woor doo ko waral rek ñoom jooy lañ koy gunge soxna Aïcha sax radiyallahu anha laaj na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu lu ñuy jooy ma defoon ne Euh, jooy moom mooy kuñ teg loxo tam doon sàcc wala ñu teg ko loxo tam doon def leneen lu neexul yàlla ñii def lu neex yàlla ba noppi du jooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah sàcc si du ñuy def lu neexul yàlla ñu teg leen loxo waaye mooy ñi nga xam ne dañoo kër kër yi ba weeru koor wi xaaj ba weesu xaaj te xamuñ ba xam yàlla nangu na koom am déet te xamuñu danañ fekk weer wi am buy jeex te la weesu weesu moo tax. yàlla nañu yàlla dimbali ba bu weeru koor bi jeex fekk na fi te liñ ci jot a dese ko defagu na ko si néew mu nangu ko te làqal ñu ko fu yàq du yegg te yërëmal ñu suñu way dawlu yi kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te musaluñu seytaane ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin